formation bi ñu euh, tëj tey formation la boo xam ne bi dafa jëmoon ci tàggat ay xale yu jóge ci ñetti communes yi nga xam ne mooy commune u ñi Sébikotane ak Diamniadio commune bu nekk génne euh, ci yónnee euh, fukki ndaw yoo xam ne yi dañu lañ dañ leen tànnoon pour ñu def formation yooyu def nañ ko tey ba pare def nañ fi fanweeri fan ak juróom benn def nañ formation technique bi muy formation boo xam ne bii moo leen jàngal métier wu plombier ñu dolli ci tamit formation boo xam ne daf leen di tàggat ci seen wàllu nekkin mooy li nga xam ne lii si jikko yi lañ doon tàggat foofu jàngal leen tamit li nga xam ne lii mooy li ñu war a xam ci entrepreneuriat ndax bu ñu génnee mën nañu liggéeyal seen bopp euh, bu ko defee dañ lay dañ leen di jàng dañ leen jàngal ñu xam naka lañuy yore seen seen mbiru bopp euh, loolu jàngal nañ leen ko bi ñu paree ci loolu tamit ginnaaw formation bi yépp ñu jox leen ben kit bo xamné bi euh, lepp lo xamné li ay outils la yu euh, plombier war a soxla ñoom jox lañ leen nopi nañu pour wut wàllu wàllum euh, wut xey ci anam yo xamné yi wuute na ak ñu bari niñ koy wuté ndax ñom am nañ qualification légui donté qualification bu bu niveau bu bu bu oyof la mais niveau bobu ñom buñu duggé ci marché du travail duggé ci chantier yi Euh, ñañuy liggéeyandool te euh, mu nekk ay professionnels aguerris ñoom ñoo leen di gunge liñ leen seen formation euh, su ko defee mu nekk une une possibilité pour ñoom itam pour ñu déjà ñu mën a liggéey daan seen doole mais am tamit possibilité wu defaat formation continue parce que centre bi ñun bàyyiwuñu ko bàyyiwuñu projet projet bi tànk mu ngi mën a am ñun tamit dañuy man lañ leen di gunge ci li nga xam ne lii mooy formation continue gërëm centre bi bu Diamniadio di gërëm partenaires yi moo xam GFA ak euh, trois communes yi mooy Diamniadio Bargny ak Sébikotane di wax formation bi trente six jours la trente six jours la durée bon nekk na formation boo xamante ne nii bu technique la bon baax na tamit ci ñun ñii ko def bon dañuy permettre tamit bu ñu génnee tamit ñu mën a am yeneen expérience ci biti waaw nekk na daal formation boo xamante ne daal baax na daal di. lancé appel jeunesse bi ñi nga xamante ne nii am formation comme bu melni je ñu si profité sen maire yi xam wala dugg ci formation bi quoi ndaxte sens la tay ñu am formation bu melni ñu formé la ci danaka un mois à quelques jours ba paré teg si jox la matériel bo xamante ne boo génnee moom ngay liggéeyee mais dès demain incha dañu wara a dem chantier

waaye tamit euh, félicité xale yi nga xam ne ñoom loo def formation ba tey ñuy génn euh, et que formation boobu euh, nekk lu am am solo parce que ñu ngi leen di former ci ay métiers yu mel ni plomberie ak électricité te mu nekk métiers yoo xam ne tey ku ko am war nga mën a am liggéey ci réew mi donc yemuñ nag ci former leen kese former nañ leen ba pare jox leen jumtukaay outils yi nga xam ne moom la ñu war a liggéeyee ba nga xam ne bi la kuñ ci woo suba war nga mën a dem def sa liggéey ndax am nga lépp li nga xam ne soxla nga ko pour mën a def sa liggéey donc loolu mu nekk loo xam ne ñu koy rafetlu di leen wax ne tamit euh, maire yi mooy ñetti maire yi malim sànq jam ñaajo barñi ak sébu kotaan en tout cas pare nañu pour jàppale xale yi euh, lëkkaloo ak entreprise yi nga xam ne ñu ngi ci biir euh, suñu ñetti communes yi pour ñoom ñu mën a am xëy fi nga xam ne fa lañ dëkk incha allah